هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي سمد وباقي سبحانه سوك نف وواقي nan sant tey feddli sun tawidi baxda salaatina alal wahiidi te seet li yeneen yi ñëwoon ci duniyaa waxa kàddun lan wan nekk wey te seetlu xëyru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu naa wama muhammadun illa rasulil xalxala lil mu doon dunya sunu kërëg taxoo di yaale xayrul wara waa makka dun ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makkiyo dellu si yóbbu ahmadul mbakkiyo lu bàyyi sunu maam ceerno ibrahima kële di xaadim kiley maqduma yooyu le yaari xew wi le ko yetteel fa daarul muxti xew wi le di mbetteel ab ki ala seydi ibrahima borom daarul muxti taxawaay bi nga xamante ni moom la taxaw bi sëriñ tuba demee ci géej gi bàyyee ko yoon wi ak njaboot gi daf di loo xamante ni bii Sëriñ Tuubaa moo ko ko waajal ndax wolof yi dañuy wax ni ku ñeme dañu laa déey euh, boroom daaru mooti lu ciiti muy feeñ fekkoon na Sëriñ Tuubaa doon ñaan sunu borom ku ko jàppale ci liggéeyam bi ni ñu waxee nag bu ñu jàppale ci liggéeyam bi du Sëriñ Tuubaa liggéey bi dafa diisoon ci moom wala attanu ko booy wut ku ko koy yanule waaye sunu borom bi nga xamante ni moo bind mbindeef yi sax dafa wut ay càkkutéef muy ay malaayika yu koy jëfal góor yàlla bu fi mas a ñëw itam moo xam yante la moo xam lu man di doon faw sunu borom boole ko ak ñoo xamante ni ñoo koy jàppale ndax ki nga xamante ni mooy gën ji mbindeef di yonente bi sallallahu alayhi nga xamante sunu jàmbaar ji moom lay liggéey ba tudde boppam xadimu rasul daan na tëdd ba guddi mu ñaan suñu borom mu dugal euh, sidna omar ci lislaam te moo ne moom bi moom la sunu borom yebal kon sunu borom manoon na mu ñëw dox ab mission ba mu mat te du aajowoo ku ko ci jàppale waaye gis nga ñoom ñoo ñu ko wëroon kenn da ngay mel ni kenn ci ñoom mënu ci woon ñàkk ndax boo gisee euh, yonent bi bi muy gàddaay euh, dafa rañaan ànd ak Ababacar nga xamante ni bi ñu demee euh, bi ñu dem Madina dugg ci xuntima ak la fa xew ba alxuraan nettali ko Sidna Omar moom dafa jekk ba yor yor mu gàddu jaaseem ni leen eh yéen waa Makka maa ngi gàddaay fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci bëgg sa doom di jirim wala sa soxna téeñ nag ma dab kooku ba muy dem nëbbutuwul te ki nga xamante ni moom la sunu borom yónni moom ci ak yalu la dem kon ñu gis ni eh, képp ku fi nekk ku ne rek eh, dangay nga yittewoo ku la eh, féete fenn ci sa mission ndax ku tedd ci xadimu rasul ci Ahmadou Bamba xamoon nañ ni moom ñëwu fi woon ngir wut ay dendandoo wala muy wut ay tool wala muy takk ay néeg walla muy wut ay kër wala ay dëkk faawu dafa doon yittewoo koo xamante ni moo koy féete foofu loolu nag moo tax mu ñaan sunu borom ni ko sëñ mu Ka waxee bi borom Daaru Muxti di feeñ fekkoon na Cheikh Bamba di ñaan buur yàlla jàmbaar ju askanoo ci Mbàkke Balla kon bi borom Daaru Muxti di feeñ fekk na Sëriñ Tuubaa sunu borom day e, askano maam maaram wi laa bëgg nga may ma ci koo xamante ni bii li ma bëgg moom ma koy defal loolu moo tax keroog bi borom Daaru Muxti feeñee yor yorub alxames boobu ca Poroxaan bi sëriñ bi laajtee ñu ni ko ni ganu soxna Faat Isa Jóob bi lu mu doon ñu ni ko góor la sëriñ Tuubaa dafa tudd yàlla ca kaw xam ni la mu doon ñaan sunu borom may na ko ko kon ba mu feeñee rek la ko ko waajuram jébbal sëriñ Tuubaa daal di taxaw ci moom Bàmbaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng ak liggéey la boole woon ba am ndam Bamba sa ñaan nga nangu na kilee yor yan ba xam naa ne sooy rasulullahi mooy sam aliw mbaa omar billahi su Bamba doon Muusa mu dim Aaroona seeni mbir ak yooyele mbir nuroona Bamba ko yar yor ko ci waxtu chekhéri te mësulu tàggoog moom di wax til kibéri mësula juyoo ak ndigalul Cheikh Bamba mus la fanaan fu dul fa suuf fa der ba buy dem mu yor satala ba ak garam ba ak tere ja ak daaja di saf laram ba kon borom daaru feeñ na sëñ Mor Anta Sali jël ko jëbbal ko Serigne Touba Serigne Touba nag daal di koy jëlal boppam la mu njëkk def mooy euh, njëkkante ko ak saytaane daal di sëñi cëri borom daarul Muxti yëpp ba mu wóor ko ni kii saytaane du ko mën a jaar fenn ndax sëriñ bi moom la fas yenee tànn na ngir mu di ko jëfal kon ba mu feeñ rek la ko sëriñ bi daal di jël tàmbali ko formé njàng ma moomu nga xamante ni sëriñ bi moo ko jàngal wala mook ko sol ndax sëriñ ma bàññi njaay nee na sëriñ bi bi muy jàngal borom daaru mooti téere xam-xam yi téere bu mu ko jàngal benn bunt def naan ko li ci des mbokk baaxe na ko mbokkam borom daaru mooti daal di koy dégg kon loolu yëpp sëriñ baa ngi xam ni mission bi muy doxi dana ñëw ci kanam te bu boobaa euh, kii muy forme buy dem moom la fiy bàyyi loolu moo tax mu teel koo jël ñu nekk Saloum ba 1891 astafurlah 1871 seen waajur sëñ Mor Anta Sali dellu si Kajoor sanc dëkk bu ñuy wax Patar Patar mu ci wetu Njaañu Njaga nekk ci euh, arrondissement bu Sagata am fa juróom-ñeenti at en mu bàyyi ko fa dem sañ ci Mbàkke Kayoor waaye loolu yëpp bi borom Daaru Muuti feeñee gis nañu Sëriñ Tuubaa tàmbali ko tofloo sëriñ bi mën nañu wax ni yitte ji mu njëkk am te mu yitteel ko lool mooy ay naar yoo xamante ni dañu ko walla am naar bu ko joxoon ay téere ñetti téere téere bu nekk Sëriñ Tuubaa waroon ko caa fay ñetti dërëm ni woon naar bi boo delloo gànnaar ba waxtu sàngam li ngay dellu si boo ñëwee dinaa la jox ñetti dërëm yi sunu borom dogal ba ñu demee ba waxtu di jub si ñetti dërëm yooyu sunu borom defu ko fa te sëriñ bi di mu waxoon bëggul mu tuxu mu daal di woo borom daaru Mouti ak sëriñ Masamba Diop Sam booba borom daaru Mouti at ya bariwut waaye moom la ko ni nanu ànd wër réew mi ndax nu am ñetti dërëm yooyu ca mooma at la Bamba ak maam Thierno. ak Cheikh Massamba Diop di dox ba wër nu wër nañ Kajoor wër nañ Bawol ak Njàmbur ngir bëgg a am ñetti dërëm bay jàmbur ngir booba naar buñ naa Chérif al Hassanu moo ko bindal ab téere bor la ca yenu téere bu tudd nañu Fatahul Aqfal ak daawuru fayi xan limaani cab jalaal ànd nañu Massamba Diop ba dem saam amuñu lu fukki xasab booleeg mbaam kon wër nañu Sénégal gépp ngir bëgg a am ñetti dërëm yooyu suñu borom dogal ñetti dërëm yooyu jàppandiwul te bariwul waaye ba ñu dellu see ñu ñun ñi di leen reetaan naan moom de bor ba ñu leboon te doon wër ngir am lu ñu ko fayee amuñu ko lan la boroom daaru mooti wax Serigne Touba maam Thierno naa Cheikh Bamba ñi ngi nuy reetaan naa du nu fay bor bi dinaa ko yalwaan Cheikh Bamba naa ku nar a soot suñuy siis ngànnaay la del si yóbbuwaale sëg siis maanaam borom daaru mooti xamal ko ni ko nun day Eh, ñu ngi nuy reetaan ni borom naar bi duñ ko fay léegi nag dama bëgg yow bul demati toogal man ma dem yalwaani duñ ko fayee sëriñ bi ni ko nag képp ku nu yéenee safaanug lu baax loola day këppuwaat ci sa kaw eh, ndax ak siis mooy siddit gi nekk ci ci ci tànk dégg nga mu ni képp koo xamante ni jël nga ngànnaay bëgg a dagg suñuy siis ngànnaay la mooy dellu siwaat dagg yow maanaam sëñ baa ngi koy xamal ni ko képp ku nu bëgg a reetaan loola day këpp ci sa kaw kon nga gis ni ci ak tout tànk la tàmbalee jëfal sëriñ bi te boobu sëriñ bi demagul géej gi ndax boobu yoonu murit amagut ndax dégg nga sëñ Moussa ni boobee ba tey maam Thierno Ibra Fati mësula tàggoog Bamba fil haadaati te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko te du ko laaj te lu mu laaj mu jox ko te lu mu soxla Thierno Fati faj ko kon nga gis ni euh, formation dafa am solo ab tabax euh, fondation ba daf ci am solo euh, kon borom Daaru Muti Serigne Touba nga koy tàmbalee waajal ndax bis dana ñëw Serigne bi bàyyi fii li mu sos war a dem te kooku ki mu koy bàyyeel day ku ñu war a formé kon Serigne baa nga koy tofloo en 1880 ñu sañ ci Mbàkke sëñ Mor Anta Sali moom dëkk ba sanc ko waaye sëriñ Tuubaa moom kees gam fa amoon borom daaru moo ko ci moo ko sàkket moo takk néeg sëñ Moussa Ka ngay wax ni Mbàkke Kayoor la njëkk laa aw sàkket di sàkketal Cheikh Bamba bul ko enquête sëñ bi jëflawul kenn ku dul borom daaru muuti ñu ngi nekk ci seen wetu waay jur ndax sëriñ Tuubaa li mu nekk ci wetu sëñ Mor Anta Sali mus la yëkkati dara li mu nekk moom ci kaw suuf yëpp ci daara ja la nekk di jàngale mbay mi nga xamante ni dañ ko daan bay sax def daan sasu ni ñu daan sase taalibe yi sëriñ Masamba Diop Sam moo gis sëriñ Touba xam ni kii mbay taxu koo jóg mu dem sëriñ Mor Anta Sali ni ko léegi boo ko sasatee man maay bay sama sas bay aw sasam daal di damm goppam sëriñ Touba waaye lungul waajuram tax na mësul ni maay lii wala maay lii li mu nekk waajuram lépp lu ci kaw suuf mi ngi formé boroom Daaru Muxti waaye mi ngi nekk ci wetu waajuram di ko jàngaleel bu waajuram wàccee ab liggéey en 1883 borom euh, Serigne Touba ànd na ak borom Daaru Muxti dem Ndar ci góor yàlla bu fa nekkoon ñu koy wax euh, sëñ As ngir jëli fa wér du xaadir As moomu moo njëkk góor yàlla la woon ndax bi bo bi sëriñ Touba ñëwee dafa téye sëriñ bi mu yàgg fa lool li ko taxoon a jóg joxu joxu ko ko ba am bi sëriñ bi di borom daaru Mouti daal suba dama bëgg nu xëy dem gànnaar borom daaru Mouti ko man day sa rek lay déglu bu la neexoon buy fajar nuy dem bu ñu xëyee sëñ askamara woolu sëñ bi ni ko yow dama laa gis bii ngay bëgg a jàll te yow yaa war a ràmm waa Sodaan di sow jant kon na nga sax fa Mbàkke daal di koy jox. werdu xaadir werdu Cheikh Abdou Xaadir Jilaani wa mu doon jël si muy werdu xaadir jox ko malaanum Cheikh Abdou Xaadir Jilaani mi mu donne woon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko doonante moom egsi ci moom jox ko jàkk wa mu daan sukkootoo jox ko kurus ga ak derba malaan moomee bi ñu dellusee see Mbàkke Kayoor Sëriñ Tuubaa daf koo doglu tubéy ak turki la ca desoon mu jël ko jox ko maam Cheikh Anta ni ko bis booy dajeeg tubaab bi na nga ko yóbbuloo te booba yoonu murit taxawagul waaye sëriñ bi gisoon na ni maam Cheikh Anta dana masa am lente ak tubaab bi sëñ Moussa Ka nettali na ko ni sëñ Daam Abdourahman loo mi sëriñ Tuubaa doon ñawloo malaan ma Touré ak turki moo ko ko nettali bañ dellu see Mbàkke Kajoor eh, ci la maam Cheikh Ibrahima Fall jëbbulu sëriñ bi daal di fay bàyyi ko ñëw Mbàkke bawal kër gam fa amoon itam borom daaru mooti moo ko ko sancal mu bàyyi ko Mbàkke bawal ñëw sanc daaru salaam dégg nga sëñ Moussa Ka daaru salaam ceernoo ko sancal Bamba ca Dasasin feral Serigne Massamba en 1888 Serigne bi di wër pàkk bi di Touba ba mu ko gisee itam fekk na bi muy def lixtikaaf ci àll bi di wër Touba borom daarul muxti moom ma nga daaru salaam ak njaboot gi cer ceernoo yoroon njaboot ga ak dongoom ya di jiite jàkka ja di jàngal doom yi loolaay lelub xalifatul xadim yi Cheikh Moustapha al Mbakki yi moom ak moom doom yi eh, bi sëriñ bi bàyyee borom daaru muxti daaru salaam di wër Touba ci la Cheikh Moustapha al Karim feeñ borom daaru muxti yónni eh, sëriñ Abdul Euh, ku ñu xonn ndóoy moo de wër sëriñ bi ci àll bi ba gis ko xamal ko ni ko gan wuutu na ko sëriñ bi wax borom daaru muuti la mu koy wax euh, dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni looloo taxoon Cheikh Moustapha moom Touba mm, leerug mbirum juddoo ma feeñal tuuba euh, sëriñ Abdou Khadir Seck li maami Serigne Fallou Seck taqe moom la borom Daaru Muxti yebal moo wuti gàtt ya noo ngi jéggulu ci wax ni suñuy nopp yéen ñu joxe Cheikh Moustapha al Karim aw mi ngi feeñ ci ñetti fan yi tamxarit e, ñu jox ko aw turam ci yow ma Ashura kon sëriñ bi bi mu gisee Touba la xamal borom Daaru Muxti e, bépp googu nga xamante ni moom lañ la wax shajaratu shahada di e, garabu texe googu fa la xamale woon borom daaru muuti ni ko fii mooy doon sama barab mooy fee mu tëdd ci jumaa ji e, daal di yeew yi astafurlah mu am fa ñetti at en 1891 Cheikh Mahamadul Amin mi ngi waajuru Cheikh Sidil Maxtaar feeñ ba mu feeñee Serigne Touba ni mag ñi ko njëkkoon a topp li ngeen fi doon wut gan gi indil na leen ko daal di leen di yeew yi ñu dem borom daaru muuti en 1891 bi sëriñ bi yeewee mag ñooñu la ko ni woon nag léegi kaay nga beru wut sa kërug bopp di xëyal sa bopp di gontal sa bopp ndax ngërëm naa la ngërëm loo xamante ni xarab dootu ci topp dégg nga Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké yàlla na sunu borom yokk ay leeram taraas na ci barkeem mu ni way juróom borom daaru mooti nee na ko sëriñ Touba yeewi ne ma ba tàyyi bind na ko jox ma wax na ko ma dégg waaye saa bu ma ko waxee ma ne ko yaa ma njëkkoon a xëy te wàccoo kon du ma wàcc en 1891 la ko ne woon wutal sa yëfi bopp wutal sa kër ca moom at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkke kër kër boo lay wax ak Cheikh Bamba naa ko man dey fetal jihaad rek ma doy su doon doy daan naa ko loo yëngal soxob jihaad la te foo taxaw may sëñ yi wër la aar la te di nga jekk ba junneeku tànk ñooy yem fi yow salaaw dootoo banque may naa la ngay dund ba waxtu wu la soob desu la seet si doo fi tàggoog lu la soob kon nga gis ni borom daaru muuti sëriñ bi formé na ko ba ni ko nag léegi man ngaa dem daru di liggéey di ma indil addiya waaye dégg nga eh, borom daal mu def ko xamal ni ko lu ma la jëfaloon lu ne xeeb naa ko su ma sañoon tey damay yor ay fetal fetalal la jihaad sëriñ Tuubaa nekk ko nungul naa la li ko tàmbalee ci tey lépp loo ma jëfalati am nga ci yoolu ku ma jihaadal kon nga gis ne 1891 ñu teg ci ñeenti at 1895 juróom-ñaari at yi sunu borom mayoon sëriñ Touba ni ko moom nga war a dëkk Touba mat mu def li itikaaf ca weeru koor wa ci jàkkee sëriñ Mbakke Madina ji nekk dara Khoudoss sallallahu alayhi wa feeñu ko mu wàqanteeg moom la mu wàqanteeg moom loolu moo tax ba mu waree mu yebal borom Daaru Muxti Jolof feeñu tàggoo woon ngir mu dem sancal ko muy Mbakke Bari borom Daaru Muxti dem sanc ko au mois de mars sëriñ bi daal di fay dem def fa mars avril mai juin juillet ñu commencé ko convoqué borom ndar di envoyé sëriñ bi ay convocation waaye rambaaj yi chef de canton yeeg chef de province yi doxoon ci diggante bi di téye convocation yu ngir sëriñ bi bañ cee jot ñu ni borom ndar gis nga lañ la ci waxoon le buur Ndiambour Ibrahima Ndiaye ak le président du conseil du Kayor di Demba War Sall parce que il faut ñu wax ko ndax euh, euh, diw ay sëtam a ngi ci yoon wi léegi du tee kenn ku ne la nga jëfoon boo demee ci Siira Abu Sufyaan ñoom la ñu doon jëf dañu koy indi ñoom ñoo doon gàllankoor te li ma lay wax c'est écrit noir sur blanc mu ngeeg man ci archive yi laa ko jëlee ñoom ñoo doon gàllankoor convocation yooyu di wax gouverneur ni ko euh, li ñu la waxoon a ngi noonu yaa ngi koy convoqué ñëwul ba tax gouverneur mer lool bi ko sëriñ bi yëgee ci la woo borom daaru muti mu ñëw mu jox ko ab leetar yónni ko ci borom ndar sëñ Mor Soxna Lo yàlla na suñu borom guddalu fanam te may ko wér mu ngi bokk ci imaam yi njaare mi nee na ma keroog bi borom daaru muti tàggoog sëriñ Touba mu jox ko leetar bi ni ko boo demee sa loxo ak loxol gouverneur bi fi borom daaru muuti wane gannaaw sëriñ bi def ko ni Ibrahima mu ni ko Mbakke nee na bi mu ñëwee bi ñotti ko ba mu mu taf ko ci lay nuroog dënnu doomu aadamaam ba ni ko Ceerno demal ak sunu jëmm nu des ak sa jot kon borom daaru Mouti à l'âge de trente ans ba muy wuy ci le gouverneur général à Saint-Louis jëmmi sëriñ tuubaal la demee mu boole ko ku ñuy wax dem Demba Kebe ba mu demee itam taxaw fa taxawaay bu mat sëkk ba mu demee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na fulla ga ak fayde ga ca la gouverneur xamee ni kii day amul ay caaxaan fekk na gouverneur mer na ba envoyé l' administrateur de Saint-Louis le clerc boole ko un détachement ni ko demal Mbacké Bari demal Mbacké Bari boo demee nga forcé Ahmadou Mbacké jàpp ko waaye ba borom daal muti waxee ak moom gouverneur di ko xool ba yàgg mu ni ko benn laaj laa lay laaj sëñ bi ndax dana wuy si wala déet borom daal muuti ni ko bu may convocation yooyu mosu cee jot benn sëñ Abdou Lahad Mbacké yàlla na sunu borom yokk ay leeram nee na gouverneur ni ko kon léegi détachement bi ma yónnee woon dinaa leen envoyé benn télégraphe fu mu leen fekk danañu fa camper ba ëllëg ci 14 heures ci tisbaar bu sëriñ bi génnul nag danañ ko fekk jàpp ko par force sëñ Abdou Lahad nee na borom daaru muti ni ko fas yàlla daal di jël saxaar wàcc Louga jaar kër sëñ Omar ñaan munjure ni ko damaa soxla fas woo xamante ni du tële suñu Omar ñaan mu njëriñ ko fas wi ci waram bi day yafalu yetti at a ngi ci waxuma la tërë waaye tërëf du ko def borom daaru muuti ni ko kon nañu ma ko takkal ñu koy takkal faso mu daal di ñëw boodi fi nga xamante ni fa la le clerc campé woon soo demee ci rapport bi l'administratif de saint bi def ci le 15 euh, août 1895 euh, muy juróomi fan ginnaaw bu sëñ bi génnee ma ngi cay wax naan Ibra Fati le frère du marabout arrivé à mon campement vers deux heures de l'après-midi nee na tisbaar la borom daaru muuti egsi ci sama campement boobu nee na ma renouvelé la ma waxoon ni ko kat jot naa ndigal ngir campé fi ba ëllëg ci tisbaar waaye bu sëriñ bi génnul dinaa bombardé ndax boobu ñoom amoon nañu mitraille euh, bi nga xamante ni bii Europe sax dañ ko fa doon tere pour ñu utiliser ko boo déggee ñuy wax naan Lat bi mu gañee tubaab yi ngol-ngol ngañ lu metti waaye la bataille de Loro tubaab dañu utiliser euh, mitrailleuse euh, euh, nu ñu koy tuddee ci à nga xamante ni booba sunu ñi xamuñu ko te booba dañ doon tere ñu utiliser ko ci guerre yi daan am en Europe mu xamal borom Daaru Muuti ni ko nag bu ñëwul kon dinaa song Mbàkke Bari daal di koy boole ak Amadou Ndiaye mi mi nga xamante ni moo doon Euh, buur Njàmbur noonu doon wax léegi ak euh, Duudu Mambay di ma Mambay euh, Fara Biram seen laat nee na moroom Daaru Muxti bi mu àndeek ñoom ñu doxal ba weer wi fekk ma Abdulloo ni moom dafa gëmmentu ne ko léegi dama bëgg nu tëdd fii nelaw ba suba boroom Daaru Muxti ni ko mukk ndax li ma waxante gouverneur bëgguma mu deñ mu ne ko kon man naa nelaw ngaa nag Amadou Ndiaye ngeen dem ñu dox tuuti kooku daal di dàqaw fasam ni fa ci gajj bi borom daaru moo ti gisatul kenn ci zahir mu mu réer waaye moom Sëriñ Tuubaa moo ko jàngaloon fànni xam-xam yépp yow xelmul joom wala xelmul falak euh, Sëriñ muy xam-xamu biddiw ci la sukkandiku ci biddiw yi sëñ Abdou Ahad ba sëriñ bi di julli fajar léeg mu ni ndax Cerno egseegul ñu ni ko déedéet bi sëñ bi jullee ba noppi ci la borom daaru mooti egsi Mbàkke Baari sëñ Abdou Ahad nee rek wàcc sëriñ bi daal di koy lëng moom sëriñ Touba dox ak moom jëm ci biir kër ga borom daaru di ko nettali yoon wi mu ni ko Cerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko dara matumaa wax ndax démb ci tàkkusaan yaag nasaraan bi bi ngeen taxawee ci loolay naroo ko dett mbeer Eh, xorandoom yi doon ndox ci seen yeel yi maa ngi jàkkaarloo ak moom di ko ceer na mu ni ko mbàkke mu ni ko mbir bi dafa tilim tilim ju rëy joo xam ne dafa laaj saabu bu mag ma dem fóoti ko te ñëw su ñëpp laa nee mu ni ko ceer ceerno demuma fenn damay liggéey te ñëw sama njaboot gi laa bëgg foo ma leen mën a yoral ci senegal nga yoral ma leen ndax sëñ bi lépp loo xam ne mas naa bàyyi ko ci buuri àddina yi wala nasaraan bi bala caa jëfandikoo dara day jot ndigalul boromam kon bi ñu koy woo ngir mu dem ndar te jotul euh, ndigal loolu sunu borom ngir wuy ji waaye bi borom daaru mu ci ñëwee la ko xamal ni ko jibril kat wut na fi sëñ Moussa Ka woy na ko sëriñ bi ni ko jibril ñëw na fi bi indil na ma aaya jooje nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa bi mu nekkee Makka tey noonu yi di fexe ñi naa dañ koy jàpp ñi naa dañ koy tëj ñi naa dañ koy faat ñi naa dañ koy génne sunu borom wax ni day ña fexe waaye man itam maa ngi fexe muy ay wa is yamkuru bika allazina kafaru jooju nekk ci suratul anfal mu ne ko nag jibril ñëw na biig ba indil ma aaya jooju kon nañu ma takkal fas fi waroon ma war ko terem su yëpp bi mu ko lëngee ñu dox ba jub kër gi bi sëñ bi dugg ci kër gi dafa tudd yàlla ca kaw ni ko ceer na mu ni ko mbàkke mu ni ko suñu borom xamaloon na ma ni sama duggaat ci biir kër gi dafa xaraam kon nañu ma takkal fas fi nga waroon ma war ko te dem daal di dajale njaboot ga ak bagage ya jël bopp loxoom nday joram teg ci boppu sëñ Modou Moustapha bopp càmmoñ mu teg ko ci boppu sëriñ Fallilou Mbacké ne leen dénk naa leen yàlla mi nga xamante ni loo ko dénk du réer dénk naa leen yonent bi dénk naa leen seen bay cerno muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar doonoon bisub gaawu di le 10 août 1895 di bis bi nga xamante ni moom la ñuy màggal Touba loolu sax am na ñu koy contesté naan sëriñ bi neewul dénk naa leen yàlla daf leen dénk naa leen yàlla yonente bi waaye boolewuñ ci seen bàyyi na ma ni loolu même bu fekkee sëriñ Tuubaa waxu ko sëriñ Tuubaa daf koo jëf ndax nit ki mën naa wax lëf ba noppi du ko def waaye jëf mooy li am solo ndax sëriñ bi bi muy bàyyi ko Mbàkke Bari lu mu yilifoon lu nekk rek ci loxol borom Daaru Muxti la fa daan kon même bu fekkee waxu ko jëf na ko ndax ak njabootam muy Cheikh Moustapha El Karim Cheikh Mamadou Yeddaani Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Amin ak ñu fa nekkoon ñëpp ak dong yi keroog ci loxol borom daaru muuti la ñu fanaan keroog bi borom daaru bi Serigne Touba bàyyi ko Mbacké Bari génn boo demee ci rapport ba Leclerc nee na li ma Ibra Fati waxoon ca ëllëg si ca Tisbar la Serigne bi fekk ma fa ma campé woon boodi ñu ànd dem euh, jeewal jawal googu sëriñ bi fanaan na fa mais tubaab yi leeraluñ ko euh, la ñu wax rek mooy bañ fa jógee jeewal dem nañu kokki ba ñu demee kokki aussi sëriñ bi euh, Leclerc dafa wax ni jëloon na ay précaution ba wutoon ay soldats yu ko doon wattu ndax la ma ci doon tiit mooy ki suba sa ba nu xëyee kokki jëm Louga waa dëkk ba dañoo fippu ba euh, Mambay bi Biram Lo ak Amadou njaay moom mu jiitu woon dañoo soqi ay sox ñu doog a mën a am fu ñu jaar bi ñu ñëwee ba egg si dëkk bu ñuy wax Belel jóob euh, le clerc nee na waa Belel dañoo mer ndax sëñ bi ñu àndal li leen jaamu bu yàlla bii ngeen jël te jotewuleen ak moom dara di ko yóbbu dañoo mer ba tere nu seeni teen ñu duñu fa bëgg suñuy fas kon waa Belel Diop yàlla na nu leen sunu borom fayal sëriñ bi daal di ñëw Louga jël fa saxaar dem Ndar ko googee ba mu ñëw keroog la yëndu Louga woo réew ma naa ko tee ngaa feeteel jihaad mu naa banaa ko maanaam bi mu ñëwee waa Louga taxawoon nañu ni ko noon xeex ak tubaab yi ngir nga bañ a dem waaye sëriñ bi moom daal di gàntal kon indil naa la borom daaru muuti bi mu feeñee fi mu jaar ak sëriñ bi ndax ndégul ba sëriñ bi dem ci géej gi mu doog di ko jëfal mais lii ma la wax lépp ma nga tàmbalee ci ba mu feeñee ci nekk seen waajur ba seen waajur làqu bi daa sos Cheikh Bamba woy ab dénk yónnee Ceerno ne ko nga waar bi ni yaa moom xarnu fa ansiri naa se la dénkoon Ceerno ji waxe piir yal na Bamba Ceerno ma far la wax xasida ga ak araf nga xam na Bamba jox na Ceerno yëf ya wasiyatun tukasirul ataaya li kulli man yajtanibul xataaya أزيك بالعلم وبالأهمال ما تعد به على الكمال نزف عادك عن الأدران تكن مقدما على الأقران سل لإخوانك النشيئة تنجو من البغداء والفديئة رم تودع لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلم إذا هبت وجود الكتاب فكرم الكتاب بالمتاب لئن لسانك وقلبك ما للمؤمنين خير خير تجمع ناديتك اليوم بإبراهيم علم فتى ينفع تفهيم أسيك بالصبر وبالإخلاص لوجه من لي جانب kon taxawaayu borom Daarul Muhti ci bi sëriñ bi demee géej ci géej gi mu ngi tàmbalee feeñ sëriñ bi dem na bàyyiwu ko ay dëkk bàyyiwu ko ay néeg bàyyiwu ko ay saq ñi bi war a xewloo jóge na Mbàkke Bari mbayu fa Mbàkke Bawol ga mu jëm fekkiwu fa ay saq yàlla dogal bi mu ñëwee mu jàll ca gannaaw Mbàkke sanc fa sanc ba metti lool mbiri xéewal jafe lool ba borom daaru muuti dégg sàq mu ñu doon jaay mu yónnee ca saq ma borom saq ba ni leen bu ngeen demee ne leen cerno sàq bi ñetti dërëm laa koy jaaye sàq bi nag mayewuma ko leblewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay bu amee ñetti dërëm ma jaay ko ko bu amul ñetti dërëm mu bàyyil ma fi sama sàq te sàq la moo xamante ni mbër boofu law na ca maanaam sàq la moom yitti wowu ko ba taw na mbër boofu law ca ba nawet ba jàll mooy li war wax sàq mu mbër boofu law ñu wax ko borom daaru muuti ca ëllëg sa ci tàkkusaan sëriñ ahmadu ndumbe xabaan indi fa addiyee ñetti dërëm moom itam yàlla na ko sunu borom fayal borom daaru jël ñetti dërëm yooyee daal di koy yónnee ñu jënd sàq ma mu ne nañu ko xet ba yàgg mu ne nañ ko fi bàyyi ba ndox laal suuf waaye na leen wóor ni bu fekkente ne mbéy rek mooy maye dugub noppi damaa ñàkk dugub waaye loole moo waxoon nga xamante ni Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké yàlla na ko sunu borom fayal nee na borom daaru muuti li mu daan ñoral ci mbéy dama defee nii la ko ko Serigne Touba dénkoon bi muy dem ci géej gi moo tax ndax mbéy moomee dem na ba la deuxième guerre mondiale euh, tubaab bi ñëw nañu ci moom ni ko dañu bëgg nga jox nu pepp mu ñu dundale prisonniers de guerre yi maa ngi fekk benn document bopp Serigne Mor Diop bu Mbakke moo doon lijjanti loolee. Eh, Sëñ Abdou Khoudoss it nee na am na ku ñu daan wax Balla Touré ne woon na borom daaru muuti ñaari lettre ci yow la mas a daje lettre bu bàyyi ko ci sëriñ Touba ni la indil dugub ci biir kër gi ak lettre bu bàyyi ko ci gouverneur ni la indil dugub ji ñu dundale ko prisonniers de guerre yi loolu ci yow rek la mën a daje loolu mbay moomu ci la dem ba en 1938. Euh, le gouvernement français décoré ko ci ordre national de mérite agricole soo demee ci euh, journal euh, officiel bu France ci le 30 le ci le 30 mars 1938 ci le décret ba génn ñu tudd ñu ñu choisiroon 250 personnes ñaar téeméeri nit ak juróom fukk ci li France yilifoon ci monde bi yëpp ngir war leen a takkal ay médailles ci man a béy ñaari nit ñu ñuul ñoo ca nekkoon muy borom daarul muuti ak Cheikh Moustapha al Karim ñoom lañu tànnoon décret baa ngi fii ngir décorer leen ci ordre national du mérite agricole kon ka doon jëggaat ndugub jënd am sàq fii la mujj ci mbay li ñuy wax pas ak dogu la mu ne woon bu fekkente ni ndax pepp kenn créé yu ko ñeenguwuñ ko dañ da ngay da day da ngay faro mu taw mu sax nga bay baxaw bayaat balar ci euh, am dugub mu ne nag du fait que liggéey rek koy may bayee koy may dootuma ko ñàkk kon moo tax mu dem ba bokkoon na ci turam yi ñu daan ko wax borom dàgge yi borom daaru muuti moo daan am sàq fukki fukk sàqum fukk nga xam ne bu ñu ko bojjee dana ëpp vingt tonnes ba fi toll jamono ji nga xam ne modernisation agricole bi tax na ñuy béyee tracteur ba léegi gisuñu koy ñoral li borom daaru muuti daan ñoral ci mbéy loolu ab parenthèse da rek waaye borom daaru muuti ñëw na ca gannaaw mbàkke sañc fa mu doy waar loolu ndekete foofu dafa nekk ci mbirum jinne Cheikh Mamadou Yeddalim sëriñ bi daal di wàcc ab liggéey ma nga ñu denc soo demee Cheikh Mamadou Yeddalim yi ko sëriñ lu Mbàkke tuddee mooy defar barab ba ma nga ca gannaaw Mbàkke Bawol eh! sëñ Dame Amadou Fati mii magi maam Thierno daal di wàcc ab liggéey soxna Fati Bintu wajuru sëñ Modou di rakki borom Daaru Muti daal di tawat Cheikh Moustapha Kérim tawat Cheikh Mohamed Lamine Baara tawat waaye borom Daaru Muti bi rakkam jooju tawatee magam wàcc ab liggéey taxul mu wax dara waaye bi Cheikh Mohamed Yedda daal di nelawee Cheikh Moustapha Kérim tawat Cheikh Mohamed Lamine Baara tawat. ci la borom daal mu ci jàpp ñaari rakk julli tàllal ay loxoom sunu borom ni ko yow yàlla maa ngi lay ñaan boo daal di jël njabootug sëriñ Touba gi sëriñ bi ñibbi si ma di ko laaxat njabootam ngi jëlal sama bakkan ak bakkanub sama njaboot ak bakkanub soxna Fatou Issa Diop sama waajur te bàyyi fi njabootug sëriñ Touba gi kon bu ñu nee taxawaayu borom Daaru Muhti gannaaw sëriñ Touba def naa ab taxawaay mënut a gën a rëy tawat tab bi nga ni sunu borom bàyyi yéen njabootu Serigne Touba gi. te jël ma maag sunu njaboot ab taxawaay def naa mënut a gën a mat taxawaay boobu te kookee woykat bay wax naan moo indi raay bii moo fi def juma ji moo indi Cheikh Bamba ci biir mooy waa ji di Cheikh Moustapha al Karim su fekkonte ni Serigne Touba ñibbisi na fekku ko fi kon yoonu murit naka lay mel kooku nga xam ni moo wutu Serigne Touba indi Serigne Touba Touba taxat damul indi raay bi jëlee ko njaareem ba Touba loolu xam naa beneen waxtaan lay doon ndax foofu ni ko tolloor yi defoon ci xaalisu jumaa ji tubaab yi maa ngi fekk décret boo xamante ni le président de la république française moo ko signé ci le 31 mai 1931 euh, ñu million 22 millions 950 mille francs à l'époque ngir les 46 kilomètres virgule 950 euh, mètres te mooy raay bi war a bàyyi ko njaareem ba ñëw Touba. lépp tubaab yi ñoo ko war na def xaalis ba génn na waaye teewul dañoo lekk xaalis ba main d'œuvre bi ñu def loo ko Cheikh Moustapha al Karim loolu maa ngi doon wax ak Cheikh Ahmadul Mokhtar yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool Mbàkke te wéral ko moom mi toog toog ay Cheikh Moustapha al ni ko loolu lu ñu war a jàngat injustice la boo xamante ni war nañu koo jàngat ndax raay bi Cheikh Moustapha waru ci woon def dara li ba léegi dañoo wax naan raay un un moo ko war a def Cheikh Moustapha dafa jëf jëfi état te loolee mooy li nekk ndax l' état français bi ñu liggéey liggéeyoon le ministre des colonies moom moo def proposition ba demande autorisation bi ni ko on a vingt deux millions neuf cent cinquante mille francs ci suñu budget local moom lañu war a defaree raay bi le président de la république française décrété ko signé ko mais décret boobu dañ ko teg de côté Cheikh Moustapha ñi doon gas raay bi la ñu doon lekk. tubaab yi ndawal gañ doon jëfandikoo lépp lépp moo ko dépensé tax dépense yooyu génnoon na loolu dafa am jot dafa dafa jot ngir ñu jàngataat ko wane injustice bi nga xamante ni mu ngi tàmbalee ci kii ñuy wax di sëriñ Touba dóoru la xasu la xeexul ak yow nga jël ko ci ak bari doole ni da koy sànki kon Serigne bi du ñëwoon fekk fi Cheikh Moustapha kenn du xam na muy mel kon borom daaru moo ci jëf na loole gannaaw ba dafa bàyyi ko ñëw sanc guy nguraa euh, nga xamante ni am na fi yetti at yoo xamante ni dañuy tëdd ba guddi chef de canton yi yebal ay nit ñu ñëw taal kër gi ci seen kaw ndax kër gi booba làkkub dóor dóor lay doon làkkub ngeer sàkket sax amuñu ko làkkub ngeer lay doon boobu dañuy tëdd ba guddi ñu taal ko bu ñu déggee sawara yi borom daar muusi day jóg yee njaboot gi ñu taxaw mu takk ba mu jeex bu ñu xëyee ñu duggaat àll bi goriwaat am ngeer ngir ñëw lakkaat ko lakkum dóor dóor loolu sëñ Moussa Ka ma ngi koy nettali di wax ni loolu ku ko weddi da koy laaj soxna Fatou Sylla Libaas mii waay juru soxna moom it bintul xadim mu ni ku weddal ku weddi laajal soxna Fatou Sylla moo teewe démb teewee tey am ful la am na ca kër ga yetti at di lakkaat at mu taxaw mu lakk cerno lakkaat chef de canton yi daal di ciy profité bëgg wut comme li ñuy wax ni soulèvement populaire bëgg a féewale borom Daaru Muuti ak murit yi bu leen ko topp kii du Serigne Touba bëgg koo féewale waaye Cheikh Mamadou Ndumbe Xabbaan daal di taxaw taxawaay bu mat sëkk ba loolu moo tax boroom Daaru Muuti jël rakkam na Faati Bintu mi way juru euh, Serigne Modou Xabbaan jébbal ko sëriñ Ahmadou Ndumbe Xabbaan nga gis ni tubaab yi kon lenn lu nekk jéem nañ ko Serigne bi am nattu nañ ko ñaar téeméeri nattu ak juróom ñetti fukki nattu ak juróom ci géej gi waaye borom daaru muuti mi desoon na ak njaboot gi moom itam lu nekk eh, daj na ko xam nga ni nit ku tëdd ba guddi nga ñëw taal këram mu jóg te amul ku muy xeexal amul ku muy waxal la muy def mooy bu xëyee gajjiwaat am ngeer ngir fas yéene defaraat am néeg ñëw nañu fi sàmm ay toolam ne leen dem leen ruural ko ñu sàmm ko daal di faat ñaari jëwriñam sëriñ Aliou Guèye yal na ko sunu borom xare àjjana fetto gi lañu ko fàtte ba pare jël e, ay jëwriñam ni leen yéen a tooñ sàmm yi tëj leen kaso Cees nga xam loolu taxoon na borom Daaru Muuti suur mer ba taxoon mu bàyyi fi Daarul Manaan e, dem xabaan ak e, Pir di wër beneen àll ngir injustice bu metti boo xamante ni bii sëriñ bi dem na ci géej gi tubaab yi jéem nañu jéem a fexe ak ñi leen fi nekkaloon nan la fexe ba borom daaru muuti échoué loolu taxoon na ñu jekk ba yàgg ñu ni Cerno muy daal ngir tàggale ko ak njabootu sëriñ Touba nañ ko xamal ni ko sëñ bi nekkatul du fekk sëñ bi lañ yóbbu mu bàyyee ko njabootam xanaa bu fekkee ni sëñ bi génn àddina njaboot gi dañ ko tasaare ñu daal di bind ab leetar yónnee ko xam leen ni sëriñ bi nekkatul ñu bari dañuy wax naan. tubaab bi moo bindu leetar mais tubaab bi bindu leetar ndax tubaab bi ki mu njëkk a déporté yóbbu ko Gabon en 1855 la ko déporté ëpp Saloum Saloum la woon mooy at bi nga xamee ci Zaïre am na ñu ni ci la sëriñ bi feeñ la ko dale ci moom ba ci sëriñ bi ku fa kuñ fa mas a yóbbu tubaab bi faat nañ la waaye amul kenn ci ñoom koo xamante ni mas ngaa faatu ñu bind say bokk naan leen diw faatu na ndax loolu koo nawloon teel nga koy def waaye koo xamante ni sa prisonnier la sëñ bi bañ ko boolee gaynde su ko gaynde ga jëfandikoo woon bañ ko dugalee ci yar ma lenn lu ca nekk buñ ko defoon bu fa fa lay yem waaye chef de canton yi ñu woon ñoom ñoo complété ni Thierno mi yor njaboot gi nañ ko bind ko sëñ bi nekkatu daal bind ab leetar xam le ni sëriñ bi génn àdduna bëgg gu borom daaru muuti bëggoon sëriñ bi tax na mu def ko aw tàngoor mu tëju di jàng alxuraan ca kaw soxna Fatou Issa Diop ñëw laaj ko waaye juróom lu xew mu ni ko man kat dañ ma xamal ni ma sëriñ bi nekkatu mu ni ko Ceerno ubbi lekkil te naa ni sëñ Tuubaa moo ne woon ma moo ma ne woon mooy moo may nungu ci bàmmeel te maa ngi nii di wax ak yow sëriñ Tuubaa eh, lam ma waxoon ak alxuraan ñooye moo may nungu ci bàmmeel soo ko sàkkoo gis tey sax di ko gis dégg nga sëriñ eh, Moustapha Saliou di ko nettali ba ni keroog mag ñi dégg nañu sëriñ Tuubaa di wàqante ak borom daarul mooti kon euh, lettre boobu ay pexe la woon ni borom daaru mooti sëñ bi nekkatul jëlal sëñ Modou Moussa ak sëriñ Fallou nga jox leen Cheikh Sidiya te tasaare njaboot gi ndax boobu borom daaru mooti li mu doon représenté dafa doyoon waar pexe mu nekk fexe nañ ko ba loolu bokkoon na ci seen pexe yi dégg nga waykat ba ni tubaab yi mas nañuy fexe lu mel ni leetarum naxe yónni ko ndaw mu ñëw joxe jébbal ko njol fàtti isa naa ko sa mag ja làqu na dootoo ko gis ci àdduna keroog yaramo tàng na mu wax ko naa ko mag day tëyi nax te yow sa mag ja lam wax du dañ nde moo may def ci pax ngi man fàtti isa maam Ceerno fàtti les ci xaar ca baatinam bu doy ba waar giseeg magam ju doy jawaar xibaar ko maam fàtti isa ñooñu nag ku nekk aw turam maanaam ña wax loolu ndax loolu ba mu xewee euh, am na ñu ci bégoon ni waaw Thierno moom nu muy def ñu ne ah mu koy tasaare ñab nangi wax nañ ni ñooñu ba sëñ bi bind borom daaru moo ci leetar kenn ku ci nekk sa tur daf koo bind ak daaju xonq kon ñu xam ni tubaab yi les déportés politiques yi ñu doon yóbbu maa ngi fekk ñoo xamante ni euh, doon nañu bind di salit di ñaan bu nu dellusee danañ leen jaamu lu ngeen di wax danañ ko def waaye lu ñu bëgg mooy ngeen delloo suñu ci seenu njaboot waaye wallahi mbind mooma day doo ca gis mukk fuñ la ni Serigne Touba moo bind jàmmat ni kañ lay ñibbi walla ndax conseil colonial yi fi doon am euh, te booba sax fekk na yëf yi gën a nu mu bari na ñu fa yóbbu ñuy saalit di bind dinañ leen gracier yeneen tubaab yi raam nañu ci seen i tànk sukk nañu ngir ngeen euh, jàppale nu ñu si te du ay Sénégal rek lañ fa daan yóbbu. ndax nguur yàlla bu mag boobu di euh, Samori toure tubaab yi ñu ngi ko jàpp ci le 29 septembre 1898 at moomu nga xamante ni tubaab yi tere woon nañu Sénégal ni kenn dootu fi natt asaka as kenn nattatul woon asaka ndax boobu bëgg nañ ñu fay impôt euh, gouverneur Chaudié décrété ni bopp bu ne nay fay ñaari 15 deux francs impôt waaye asaka bu ko kenn nattati kon euh, góor yàlla bu mag boobu li wolof yi wax naan dañuy wax ni ku xare ka daw dàqul ka dee dàqul ndax nii ñuy waxtaane sëriñ bi fii euh, le roi du wasulu di euh, doonoon góor yàlla doonoon jàmbaar nekkoon Guinée ak ak Mali nga muy Samori Touré lu nekk woon na ko nasaraan bi am na tagg wu ñu koy tagg en français waaye nit ki boo koy tagg rek boo wax ni daanu na barab sàngam tagg wa day daal di xaw a taq suuf ndax maa ngi rappelé wu regard sur le passé euh, ñu ngi ko tàmbalee fañ ko jàppee le 28 septembre 1898 au petit matin à la faveur d'une brume épaisse un détachement français que les soldats de l'Allemagne avaient pris pour des négociateurs pénétra par surprise dans son camp à Guélémou et il fut prisonnier. Celui qui, pour libérer sa mère, souffrit comme esclave. Celui qui, pendant 16 ans, lutta farouchement pour préserver la liberté et la dignité de son peuple, celui dont le seul nom semait la panique dans le camp de l'envahisseur, fut déporté au Gabon dans un île de Lougué, d'où il devait s'atteindre le juin njàmbaar gaag bu tubaab bi masaan dégg turbaag yëpp waaye nee nañu jël nañu ko yóbbu Gabon nga xamante ni ci la wàcc ab liggéey ci ñaari fan ci weeru juin ci atum 1900 te moo ne moom day ay denn noom yëpp dañoo demoon ay bëkk néegam ay domestique am ñoom ñëpp dañu àndoon ak moom dem euh, Gabon même Samba bi nga xamante ni moom la ñu xam ci ku demoon muy Samba Laobé Penda di ex buur ba Jolof nga xamante ni yóbboon nañ ko Gabon moom dellu si na ba Thiéyeen la mujj waaye lan moo tax mu dellu si jébbalu bu mu jébbalu woon ci Serigne Touba loolu tam dafa jar a leeral ndax ñu bari dañu wax naan Samba Laobé moo kalaame woon Serigne Touba mais Samba Laobé taalibe Serigne Touba la woon Mbacké Bari gii la jébbaloo fekk boobu mooy buur ba Jolof ci la ko tubaab yi meree jël ma Abdoulou utiliser ko mu jël tampon bind ca leetar ni moog Serigne Touba dañoo bëgg song am na band bu ko Serigne Falilou Mbacké di nettali yàlla na sunu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem. ni dafa bëgg ànd ak sëriñ bi xeex ak ñun ci lañ sukkandiku ba jël ko déporté ko yóbbu ko gano waaye sëriñ Touba aar na ko ginnaaw sunu borom ba mu dellu si ba mu ngi mujj ci Jolof kon taxawaay boobu la sëriñ bi moom la borom daaru muuti taxaw ndax sëriñ lu Mbàkke jëlee naa ci Abdul Xuddos Mbàkke mu ni sëriñ Fàllu moo ko ni keroog bi sëriñ bi di tàggoo ak sëriñ Touba. ba sëriñ bi war dafa am der bu sëriñ bi fàtte woon ci biir kër gi nee na mu woo borom daaru ni ko na ko indil der bi borom daaru mu di ñukk di jëli der bi sëñ fa ko def nee na sëñ Fallu naan ko ni ko maag Cheikh Moustapha boobu dañ doon naan xoolal Baye Ibra ngay daw ndax ñoom booba Ibra lañ ko daan wooye Ibra Fati nee na sëñ Fallu ni ko booba maag sëñ Modou Moustapha dañ doon wax ne xoolal ba Ibra ngay daw muy ndeysaan mbir mu doy waar ndax booba ci zahir ay tuut tànk seen way jur ma nga leen di tàggu di dem xamatuñu kañ la ñu koy gisaat ma nga jëm ca nasaraan ba waaye dégg nga sëñ Fallou nee na ma naan maag Cheikh Moustapha Baye Ibra ngay daw sëñ Abdou nee na suñ Fallou nee na ko booba maa ngi tollu ci sóoratu lan Fall ma ne ko ah sëñ bi kon xanaa booba léegi mu wàcc mu ni ma déedéet ndax bu njëkk ba ci noonu ñi ci kaw lañ daan tàmbalee booba kon bàqara la amaagun Ali Imran eh, Nisa eh, Maïda lan am eh, ak la araf ba tàmbali lan ci la sëriñ bi dem mook Cheikh Moustapha boobu ci juróom-ñaari at la ñu toll waaye taxawaay ba ko sëriñ bi ba mu taxaw sëriñ bi dénkoon leen ko ci na def ci ñoom xam-xam loolu moo waral kaamilub Cheikh Moustapha Abdoulaye Ndour moom yi nga xamante ni bi ñu waxee ni sëriñ bi nekkatul ñu am ñetti at yu ñu ko gisul moo jógee Gabon indil borom daaru muuti ay leetar ba mu dellu Gabon la sëriñ borom daaru muuti dajale ay addiyaam boole ko ak kaamilub Cheikh Moustapha al Karim ko boo demee nga jox ko sëriñ bi dégg nga sëñ Moussa mu ni ba Abdoulaye di dellu min Konakiri maam Thierno jox koy addiyaam ak a bari booleeg mbindum taawam ba am di Moustapha Cheikh Bamba yor ko muuñ di Thierno xat o fa kon taxawaay ba daf doon doy sëkk rek formation bi nga xamante ni moom la forme njabootuk sëriñ Touba gi ci jàngal leen def ci ñoom xam-xam e, yemu ca ndax dégg nga Serigne mu ni Cheikh Moustapha mbakke ma dem xalifa ceer noo ko jàngal kooko nawleem dee fa dencal ko aminaloo saay nopp nopp ñi koy déglu te mag ma fopp borom daal mu di jàngalu leen yem ca mais Cheikh Moustapha bi mu ko jàngalee ba noppi rakkam ji jigéen soxna Aminata mbakke mi ñu joxoon Serigne Dame Abdourahmane Lo mu am ca soxna amintaloo soxna amintaloo moomee moom la borom daaru muuti jël jox ko euh, Cheikh Moustapha Karim mu am ca taawam ba di soxna Mariam mu ak Serigne Mbakke Madina mu ni El Hadji Falliloo nga woon fa Mbakke ci kër sëñ Mor Jaara ceernoo ko mottilil bi xayri sakki dencal ko doom ju tudd soxna Aysa bokkal Cheikh Abdoul Khoudous lépp muy soxna euh, Astu Cerno daal sampal Euh, mm, Serigne Fallou kër maanaam euh, la ko sax mooy euh, soxna Aïchatu Lo ndax soxna Aminta Lo moom ñu joxoon sëñ Abdourahmane Lo moo fa am soxna Aminta Lo di jarbaatu borom daaru muti mu jox ko Cheikh Moustapha al Karim soxna Aïchatu Lo di jarbaatam mu jël ko jox ko Serigne Fallou muy wayjuru soxna Mbène Fallou mi taawub Serigne Fallou nga gis ni yëmul rek ci jàngal leen waaye taxawu na leen dégg bi borom daaru muuti nelawee sëriñ Moussa Ka ma ngay wax naan ma jooyle am di Moustapha baayam ba ko jàngaloon te def donay baayam ba fu muy jëlee ti baay bu mel ni no mu di ko xoole Bamba cey biib xarnu kon euh, borom daarul muuti euh, taxawaay bi nga xamante ni taxaw na ko gannaaw sëriñ Touba ab taxawaay mënu koo gën a mat ndax su ñu doon melal mi ngi mel ni tey ji rek ku créé woon parti politique mooy temps yi nga xamante ni multi multipartisme amagul ñoom Cheikh Anta Diop jamonoy Senghor bi ñu créer PA RND ak ay PA yi biñ leen doon jàpp di tëj sëriñ bi créé na yoonu murit nasaraan bi ni ko bu fi amee jël ko ni dañ koy sànki kon ki nga xamante ni bii moo taxaw ba bi sëriñ bi di bàyyi ko ci géej gi di ñëw fekk na yoon wi samp ba dëgër cheikh yi bari Cheikh Moustapha ñoom jàng ba keroog bi nga xamante ni sëriñ bi eh, bàyyikoo ci géej gi wàcc ndar muy bis bi ñuy déglu di fukki fan ak juróom ci Soxbaan di màggalu Daaru Mooti dafa yónni sëñ Issa Dieng borom Dieng ak Lagan ni ko demal wali ma Cerno te Pastef ba sëñ Issa dal di jël saxaar wàcc këram ndànd takke foofu fos fos da koo dawal ba fos wa daanu mu yenu teg jëndaatu fos noonu la ko def ba daaneel na ñetti fas doogu ñëw daarul manaan kon bi muy dem euh, sëriñ bi euh, bi bi Cheikh Issa ñëwee ànd ak borom daarul muuti ñaari yoon la ma sa génne ay ranqooñ ci ak dundam bu njëkk bi mooy bi tawat tàbbee ci njabootu sëriñ Tuubaa gi bi ci des mooy keroog bi nga xamante ni Cheikh Issa ñëw na daarul manaan fekk na borom daaru musi dafa dem Touba ngir nemmee ko ji kër yi sëriñ Touba yi fa nekk ndax Touba Touba bi dañ ko tere woon nit boobu kenn dëkkati kenn dëkkatu fa woon euh, Touba mosquée mooy fi jumaa ji nekk moo fa nekkoon daarul Xuddoos daarul Minan ak daarul Rahman di daarul naar kër Serigne Sohaybu kër kër sëriñ Serigne Touba yëpp euh, borom daaru musi dafa bàyyi woon ay dongo yoo xam ne ñoo daan euh, toppatoo di wattu kër yi bu toogee daaru maanaam ba yàgg mu dem nemmeeku ji ko bi Cheikh Issa di ñëw dafa fekk mu dem nemmeeku ji kër yi bi ñu ko woolu jee nag bi mu ñëwee Cheikh Issa ni ko sëñ bi ñëw na ma nga ndar moo lay woolu ci la ànd ak Cheikh Issa ñu takk ba ñëwee ba dëkk bu ñuy wax yol ma ci booru Cilmaxa ñu tekki fa tuuti dallu daal di ndànd dañu dégg saxaar gi bàyyi ko woon ndakaaru di sifle Cheikh Issa jël fas yi jox ko sant ba mu yóbbu ko këram ñu daal di jël saxaar borom daal muuti bi mu wàccee ndar barab bi sëñ bi nekk ba mu ko fa fekkee ba mu ko jubee raam ñëw jox ko loxo suñ jóot sëgg fa dafa sotti ay rànkooñ ba loxob sëñ bi mel ni dañ cee sotti am ndox boroom dara muuti munta wax sëriñ Tuubaa munta wax ndax am nañu ci zaayir juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at yu ñu wut ba sëriñ Tuubaa moo jàng alquranil karim ci làmmiñam wu tedd wa ba ñu dellu si ñoom ñaar doog a mën a euh, jàmm sant nga xam ne keroog wax nañu ne wéet nañu ba julli tisbaar ñoom ñaar tàkkusaan timis maanaam waxtu yëpp fa borom daaru ci nekkoon ak Serigne Touba di ko rendre compte fa la ñuy jullee waxtu ya loolu moo tax ba mu noppee sëñ Abdou Khoudoss ni Serigne Touba daf ko ni waa ndax bu fekkoonte ni yaa dem ma des fi danaa ko man nii nga ko mënee loolu ak dégg la laaj ndax borom daaru bu ko mënee Serigne Touba tax mu man ko kon bu ko nee ceer Ceerno ndax boo demoon ma des fi dinaa ko mënee nii wan ko ni ko li nga def yëg naa ko li nga def rëy na moo tax waaye borom daaru muuti bu ko manee Serigne Touba tax te yëmu ca ndax sëñ bi waxoon na ko ba muy tàggu toog ñoom ni ko ne leen jàngal ñoom njaboot ji waaye bu ñu saalañ mooy bopp bu sëq bu ñu dul wat bu ñu rafle eh, bu ñu gën bu ñu gëjee jëfandikoo ndawal loolu taxoon na borom moo Muxti ba mu bàyyi koo Mbàkke Baari ñëw Mbàkke Bawol dem guy nguraa daarul ba ci daarul ma naan fu mu nekk daaru mën naan gee ba mu ba mu jëree digal sëñ Tuubaa sanc ko kër sëriñ Tuubaa ga mooy kër gee fa nekk waaye dafa wut ak kees ci euh, euh, euh, ci càmmoñ ñu tuddi ko kër donga yi fa la sëñ Mourou Moustapha ak sëriñ Fallou ñoom féete woon ci biir kër gi day wut kees goo xamante ni kee njabootuk sëriñ Tuubaa gi moo ci nekk keesuk joor gi keesuk càmmoñ gi njabootuk boppam ñoo fay nekk kees gi ci digg bi bagage yi sëriñ Tuubaa yi mu fi bàyyi woon juróom ñetti donga la wutoon yoo xam ne ni ku wopp ñu wut ko la remplacer bu ñu xëyee fomp ak fëgg ak faxas la ñuy def bagaas yi Serigne Touba yi moo tax suñu doos nee na it loolu ko waxoon ca Ndar ni ko ndax boo demoon ma def si dinaa ko mane nii kere bi Serigne bi ñëwee bàyyi ko Daaru Salaam ca ngan nga ñëw daarul meneen te borom daaru muuti dal di génn ci kër gi turkeem ba mu soloon rek daal di dem ca kër dong féete foofee Serigne Touba bi mu ñëwee mu di ko jox bagage yi dangay gis xalima gu sëriñ Abdou ne xalima gu sëriñ bi sëppoon ci daaj mu ngi ci biir daaji desitu war ga ak desitu suukar yu sëriñ bi bàyyi woon nee na sëñ bi mu ni ko ceerno mu ni ko mbàkke mu ni ko man de damaa xamul lii ak maandu la wala da ngaa amoon loo jàpp ndax it sëñ bi bu fi bàyyee desitu war ga ak suukar borom daaru muuti war na ko mën a tàngal waaye nam ko ko bàyyee doon Cheikh Abdoul Khoudoss nee na sëriñ bi da ko xool ba yàgg mu ni ko man de ceerno damaa xamul lii ak maandu la wala dangaa am loo jàpp waaye la fa sëriñ bi bàyyi woon du daa du këyit du suukar du warga du xalima lenn lu nekk na mu ko bàyyee woon limba ba mu ñëwee noonee la fekk mu euh, euh, mel na mu meloon kon formation ba ko sëñ bi formé woon ci début ba na ma la ko waxee woon feeñ na ndax su fekkee ne nit ki da nga ko bëgg a yan bu diis da nga ko war a wutal ab téeñ ba bu yenoo téeñ bi nag mooy formation ba ko sëñ bi doon formé ci ndaw moo tax bi sëñ bi demee mu taxaw taxawaay bu mat sëkk tubaab yi lu ñu mas a soxla diggante sëñ bi ak ñoom ci borom daaru mooti lay jaar ñoom demoon nañ sax ba jàpp ni sëriñ bi bu fi jógee borom daaru muuti moo koy wuutu ndax moom lañu gisoon moo daan dem ak ñëw eh, ci seen mbind yu bari loolee lañ xam xamle waaye daal ngir tënk ko ndax muy bëgg gudd mooy eh, sëriñ Touba. ñëw na am mission bu mu war a dox mission boobu sëriñ bi dana soxla koo xamante ni moo ko ciy jàppale maanaam moo ko ciy féete eh, ndax bu fi naar yi amee ay laaj yu ñu doon laaj sëñ bi ca gànnaar sëñ bi dafa leen yebal ci borom daaru moom sëñ Moussa Ka nee na Bamba di maam Thierno na leen gàgganti man Bamba bis penc ba lay lijjanti sëñ bi moom addina tax ko woon jóg moo tax mu féetale woon ko borom Daaru Muxti moo ko ko daan taxawoo waaye loolee ko Sëriñ Moussa Ka wax rek tënk na wax jëpp ndax boobu ñuy lakk kër eh, kër sëñ Touba laay wax ndax borom daal fu ma a dëkk sëñ Touba ko moom boobu ñu daan ko ñu doon ko lakk ak di ko jéem a féewale ak njaboot ak ak ak yi tubaab yi di féewale murid yi ak Thierno Cheikh Ahmadou Ndoumbé naan ko yaay gouverneur la ci sëñ Moussa Ka teg rek loola mooy lu am solo muy bayit wu mat a jàpp mu ni ko moo yaa gannaaw mbakke te sedd mbootaay moom borom Daaru Muuti te mën a muñ te mën a sàmmuk mbootaay moo yaa gannaaw mbakke te sedd bootaay te mën na muñ te mën a sàmmuk mbootaay ndax nit ki mën naa boot ba pare kanamam gannaawam tàng ba bu la bootee doo ci yàgg Eh, li ma doon wax lépp rek way eh, bayitu sëñ Moussa Ka tënk na ko muy la ma wax borom daaru moo di ni ko moo yaa gannaaw bàkke te sedd mbootaay te mën a mum te mën a sàmm mbootaay kon Serigne tuubaa jël na borom daaru moo ci formé ko taxawal na yoonu murid bi nasaraan bi jël na ko ni da ko ni da koy sànki ndax am na kilifa gu ma wax ni ma tubaab yi ñaari erreur lañ def suñu bëggoon a réussir ci sëñ bi dañuy fexe ba sëñ Tuubaa bañ a bind bi ci des mooy ñu fexe ba sëñ bi borom daaru ba bañoon fee des maanaam ñu boole borom daaru muuti ak sëñ Tuubaa yóbbu ci géej gi te ñu fexe ba sëriñ Tuubaa bañ a bind xasidaam yi nee na ma bu ko tubaab yi defoon kon tubaab yi danañu réussir la ñu bëggoon waaye bind gi ñu bàyyi sëriñ Tuubaa mu bind ba pare bàyyi borom ndaru muuti ci jéeri gi mu def fekk njaboot gi mooy erreur bi nga xamante ni bii moom la nasaraan bi def Euh, ngir jeexal daal mooy euh, sëriñ Touba lu yëngu moo ko yëngal sëriñ Touba fenn fu nekk def na fa ndax Serigne Touba bu fekkoon ne ñu bokkal maam maaram rek la defar nga xam ni ku fi sëndul Mbàkke doo doon ab sëriñ kon nga ni daf koo yemale ci ay bokkam waaye sëñ bi sant wu nekk def na fa ba këleen yaakaar gisul sax ñu sant Mbàkke ñu samti loo ñi ma sañ a tudd ñu samti jaxate sëriñ si samti siise ñoom ñëpp ñëpp ñëpp këréb yaakaar defe na ni foofa rek la sëriñ Touba def loolu moo taxoon Cheikh Abdoul Ahad ki wax ni amut benn murit bu bëgg di morom waaye nag wàññi bu nekk day am benn ñaar ñetti ñenn sëriñ Touba daal mooy géej nga xamante ni xéewal yëpp ci la nekk géej gi nag pour nga napp ci ci tefes gi ngay taxaw sànni jàpp soo jën wa ngay xéwloo fenn kenn ku ci nekk xéwli Serigne Touba yi duyal na la ci ba gisoonu keneen am waaye nag li nekk mooy tefes googu nga xamante ni fa ngay taxaw ngir mën a napp ci biir géej gi ci xéwli Serigne Touba yi moom kenn du la ni bi may ñëw ci tefes gi fekk ma fa car ku ñëw ci tefes gi fa nga fekk boroom dara moom ñépp ñëw nañu natt napp nañu am nañu xéewal waaye nag. Euh, euh, cerno ci tefes gi la ma fekk moom cerno ci sëñ Tuubaa la ma fekk moom moo tax euh, am na waxtaankat bu ma dégg mu defoon band ci at yële di wax diwa njëkk a jébbulu diwa njëkk a jébbulu waaye nag mu ni bu ñuy wax njëkk a ji njëkk a jébbulu diw topp ca borom daaru ti moom boolewuñ ko ci ndax ba muy ànd ak Serigne Touba waykat ba nee na te booba kat kenn xamagul yoonu murit ndax amagul jébbulu it boo xewagul daam rek ak borom ko fa mu dellu waxaat ni Serigne bu mag bii doy na waar ba fab jëmmam ji def ko yaar jee jëmmu dem géej ji jihaat ji jëmmu def fii di koso dellu waxaat ni keroog ba daab di dem jihaat mu ba muy dem ci géej gi ceerno la ñëpp daal siyaar tey nag fu neex waay mu siyaar ay nan gërëm borom koso wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sabar ya jaaxaan góor ñaa jigéen Bamba yendu fa garab ga di jàng te mas la déglum dandu mas la jàng jigéen ju ñuy wax jee moo leen farambu